salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information Dakarnet kontaan bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun alors seen émission gisee ak vous revient tey nag dañuy waxtaane li nga xamante ni moom mooy actualité ndax xam ngeen ni ki nga xamante ni moom la ñu dalal ah, mi ngi def actualité lu tax moo koy def loolu également dinañ ci waxtaan mais balaa ñuy sori ci waxtaan bi dañu koy bàyyi mu niroog mbokk internautes yi euh, Capo Kana de son vrai de son vrai nom Mouhamed maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay di ziar sa ñi ah waa Dakar net maa ngi leen di bëggee ñoom ñëpp di la wax que ni voilà kontaan nañ waaw kontaan nañ trop ci. alors dañu gis ni euh, balaa ñuy ñëw ci série beeg yooyu ah tuuti parce que ñu ñi Sénégalais fa lañ la xamee naam que ni yow hip hop ngay def donc mooy sax sa sa sa métier d' abord avant ñu lay xam si série yi alors bu ñu ñëwee si hip hop bi tuuti gis nañu danga nga génne benn single Kaana du bàyyi ñu gis ni xaw na nekk ego trip mais xaw na nekk tamit ay ay ay ay ay messages yu fort lan moo waral Kaana du bàyyi déjà. waaw Kaana du bàyyi philosophie la. Mm-hmm. xam nga euh, slogan la. Mm-hmm. te pour man aussi euh, benn benn benn gëm-gëm la. Mm-hmm. xam nga donc man li ma gëm mooy. comme li ko gaa yëpp xamee. yenn yenn jafe-jafe àdduna yi. biñ ci jaare xam nga donc après loolu dañoo obje dañoo dañu del benn objectif mooy que ni dootuñ bàyyi dinañ nekk si si si lu neex yàlla si liggéey. ba tey voilà ñu mën a ñu mën a gérer suñu bopp mm-hmm. donc bi ñu am philosophie boobu du woon liggéey pour ba doon star wala dara gaay xam la mm-hmm. mais liggéey ba mënal suñu bopp ko comme li ma la wax rek uh-huh. donc Kaana du bàyyi philosophie la marque la mm-hmm. slogan la donc loolu yëpp la quoi ci loo nekk rek waroo bàyyi waroo bàyyi jëm ci nekk quoi voilà alors ñu gis ni tamit euh, son bi bit bi is moo ko defar euh, vidéo bi yaa def montage bien donc voilà alors li ñu bëggoon xam mooy pour pourquoi nga jël choix bit boobu noonu quoi en fait parce que beat bi dafa xaw old school lan moo tax nga jël choix wu genre beat boobu. waaw parce que mooy comme li ma lay wax. Hmm. man hip hop laa laa xam. bu dëgër bi quoi waaw pas rab bu dëgër bi man damay déglu rab yëpp. Hmm. damay déglu rab yëpp xam nga mais man li ma bëgg quoi. Hmm. li ma bëgg damay déglu lépp mais li ma bëgg man quoi. xam nga man c'est pas que ni mënuma rab ci bitu drill wala wala yeneen xeetu genre musique mais. musique boobu laa fil quoi pour def ko en plus si si si si niñ doxee ak jabu kàpp bi. Mm-hmm. donc on était obligé ñu def loo xamante ne nii voilà. Mm-hmm. hip hop dëgg dëgg suite logique la quoi en fait suite logique la noonu la mm-hmm. fa demee. donc dañu nekk si si si job boobu rek te gis nañ ni xam nga sénégalais yi bëgg nañ ko baare nañ ko. donc dinañ ci jéem a liggéey ba nga xam ni voilà gars yi dinañ gis leneen ak leneen yoo xam ni. duñ génn concept bi quoi. Mhm. voilà alors ab lan lan moo war a topp ci ci single bi lan moo si war a topp maxi euh, wala mixtape wala album. waaw pour le moment nii xam naa ni ñu ngi waajal benn maxi. Mhm. waaw benn maxi xamaguñ nag carrément kañ lañ mhm. koy génne. ak nan lañ koy génne. peut ñu def ko ay son son son. peut-être ñu boole ko maye ko. Mm-hmm. mais loolu moo nekk nekkagum nii nii liggéey bi album dina ñëw. Mm-hmm. incha allah. Mm-hmm. mais pour le moment loolu mooy. jokkoo Maxime day am ay featuring wala. waaw mën naa am featuring. mën naa am ay featuring. mais bu dëgër bi daal lañ si lañ si lañ siy xaar quoi. non mën nga ci gis bépp. mën nga ci gis genre musique yëpp. mais de toute façon hip hop lay doon quoi. hip lay doon hip hop lay doon. d'accord alors ñu lay ñu lay ñu lay ñaanal si si projet boobu noonu mais est-ce que yaa ngi xalaat par exemple Kaana. capot bi nit ñi xam ak kaana du baay bi est-ce que parfois doo dem sax ni voilà nit ñi dañ ma toppee lii man ma bëgg leen yóbbu ci hip hop bi est que jàpp nga ni public bi ñu ngi lay suivre ci hip hop bi nga bi def donte au départ la ci hip hop maanaam nekkul li gën a fës ci lu ñu la xamee. waaw maa ngi koy maa ngi gis ah. Mm-hmm. xam nga maa ngi gis loolu. Mm-hmm. et puis bi li ñu bëgg man moom laa leen ñuy jox ah. Mm-hmm. waaw tu bëgg. loolu laa leen jox parce que ñoo ko nuróole ñoo nuroo lañu bëgg hip lañu lañ bëgg quoi tu vois hip <laughs> hop lañ bëgg donc am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy suivre ñu ngi gis carrément que ni kàpp mu ngi mu ngi teg mm-hmm. te voilà maa ngi liir gis commentaire yooyu noonu yëpp mm-hmm. par rapport ak suñu RS yëpp mm-hmm. mais voilà comme comme li may wax rek xam nga affaire yi moom nooy gën di liggéeye di gën a xam hmm. public bi lan ak lan moo leen intéressé nga gën ci liggéeyaat pour dem parce que aussi sans public mënoo dem hmm. donc tu es aussi des nga leen ñuy bàyyi xel hmm. quoi noonu la demee est xam nga ne da nga delluwaat si da nga delluwaat da nga indiwaat hip hop bu dëgër bi ci benn côté parce que mi nga xawoon di wàññeeku tuuti boo xoolee génération bu mujj bi hip hop bi ñuy def donc voilà c'est un peu euh, percu yi lañ moo si ëpp mbalax bi yow nga ñëw fëlaat feneen est jàpp xam nga ne yow yaa ngi indiwaat affaire bi yaa ngi joxaat on risque envie à ce que ñu déglu rab bu dëgër bi. waaw nga loolu moo gënoon doon objectif bi loolu moo ko gënoon doon mooy que ni tey mhm. euh, à travers Capo parce que Capo ci rab bu dëgër boobu mu ngi ko commencé si film bi. Mhm. moment bi muy wax finance boo bëggee nekk kaana da ngay déglu xam nga ay mhm. fukkeen ko crazy cool genre jab yooyu. xam nga te ñooñu tey xam nañ ni gars yi ñoom ñu ngi ciy rab bu baax bi uh-huh. xam nga. gaayam rab bi ñuy def baax na mm-hmm. franchement mm-hmm. man damay déglu genre sound yëpp mm-hmm. noonu la demee mais ku nekk ak li nga bëgg dañu demoon nag ba amatuñ public bu bëgg loolu ah, carrément tu vois mais tey bu fekkee man li gars di wax mën naa leen indiwaat ñu bëgg loolu sant yàlla loolu je pense que ni sénégalais yëpp dinañ ci bëgg kaana yëpp dinañ ci bëgg quoi alors euh, loolu hip musique bi moom moo si gagné ah, culture urbaine bi moom moo si gagné di leen fàttali yéen a ngi seen émission gisee ak tey ñu dayal euh, Capo Kana du Baye de son vrai nom Mouhamed ñu war a dugg si infidel sénégalais yi moom lañ leen découvrir ñu gis benn talent bu bu différent par rapport lu ñu faral di gis maanaam benn sénégalais bu gëm boppam li ma bugg a laaj mooy yàgg Baye Fall parfois doo leen tourné ba mu yàgg tourné bi mel na lu nekk réalité normale quoi fait ci jàppante bi werante bi doo dem ba dëggal ko sax déjà waaw xam nga rijaal moom dafa dafa nekk koo xamante ne. Eh. moom dalay jox. Mm-hmm. waaw moom ma koy nuyu. Mm-hmm. parce que si aussi jàpp na si si man dama am chance su. Mm-hmm. xam nga donc sama premier cinéma sama première production. ma bokk ak ay capo yoo xam ne ku mel ni ay rijaal ay canaar ay jaara. ñooñu bi ñuy def cinéma man maa monté. xam nga si montage bi laa newoon di monté film yi di di di xam. donc tey nga am possibilité jouer ñooñu ay grand pâté. donc da ngay da mën a dañ lay jox quoi mm-hmm. c'est-à-dire que doo doo doo pour gars yi gis sa jeu mm-hmm. dafay yomb du métti quoi tu vois mm-hmm. donc noonu lay demee gars yi ñoo si jàpp Rijal des fois ñu tourné moom noonu lay demee sax du des fois parce moom moom a dëgg fa neex yàlla daf may daf may daf may jox ay conseil des fois ñu pas bu ñu dajee tournage quoi ñu ngi toog waxtaan xaw ma gàlleem mhm. xamul sama gàlle mais nag dañuy déggante tout le temps téléphone mhm. di waxtaan ci ay whatsapp di waxtaan fépp des fois ma voilà ma soxla ko woo ko mhm. pour benn affaire mu géreel ma ko nice ñu waxtaan si et mu may conseiller aussi ci cinéma xam nga ci lu bëri ci par rapport ak jeu ci par rapport ak côté bépp quoi donc ni nga war a ni nga war a mm-hmm. comporté woo si kaw plateau bi tout sax mm-hmm. donc yooyu noonu yëpp mu ma si xelal si lu bëri man mm-hmm. la demee ay ay waay lañ daal amul dara yeneen yeneen actrices yi ay Mariama ñëpp Mariama sama waay la des fois ñu ñu génn daje ñooy bokk taabul toog waxtaan ree ñoom ñëpp dem nga Mariama leena ak ñëpp quoi man dama nekk koo xam ni si infidèle awma see kenn problème dóor bi ñu la dooroon nag noonu moom dóor boobu c'était réel wala réel wala arrêt bi arabi ma asta dóor. waaw asta dof la de. man <laughs> ma jaaxal leen boole woon séquence grave bàyyil xel de. <laughs> day dóor de xalaatul de. Eh, mais loolu lu vrai la quoi arrêt boobu noonu. waaw moom dóor bi dal na moom moom dama ñëw di wax balaa may pare dóor na ma arrêt man balaa gëjee xam lu xew. Euh. après loolu bi ma koy mujjee gisaat ñëw na di ma waxee waxu dof ay euh. tuy rab bien yeeg kaañ def caay nag kërëb kërëb mais dafa barre euh. wala mu ñëw feeñu ma noonu ama gali bu ñu barre dañuy siisu dañ lay dóor ak def ay affaire di dof dof la donc noonu la fa demee mm. su weesoo loolu maa ngi koy bége mm. man ak moom ay gain lañ mm. xam nga bien avant infidèle moom noonu mu mel noonu si film bi ni kuulee noonu bëgg di teg jabu dof di dof dof. Mm. noonu la fa demee amul benn problème. donc c'est c'est assez réel quoi am la da ngeen am da ngeen <laughs> na ñu koy ruuma naa daal ah. loolu amul. loolu ay ay chocolat la. Uh-huh. kaana maa moom ay gaan lañ. coolement mm-hmm. donc loolu moo am suñu diggante dañuy déggante mais rarement mm-hmm. tournage après voilà parce que mu ngi si jobam maa ngi sama job mm-hmm. mais sama gaañ la amul leneen lu fa xew donc noonu la demee quoi parce que mooy li ma la wax c'est-à-dire ñun loolu la def seen liggéey la liggéey bi la et puis voilà quoi da koy jar des fois aussi nga dund ko pour que séquence bi rafet carrément. Mhm. xam nga mooy li boo nekkee technicien nekk monteur nekk affaire yooyu yow di nga xam image bu rafet quoi. Mhm. donc si baax tamit nga jox ko. jox ko est nga ni affaire affaire dina amee nii doole maanaam yow dafa mel ni beneen sens sax euh, affaire bi dafa am doole quoi macha allah kapo bi kapo bi da nga dem ba surprendre sax public bi en quelque sorte. ci ci ci façon bi nga décal décalage bi nga am ci série bi ñëpp xàmmee la visé la ñëpp bëgg la loolu est-ce que yaakaar nga ni di am mbooloo boobu noonu. waaw côté bi ma betee mooy xaw ma yooyu quoi. waaw côté bi ma bettee mooy xaw yooyu carrément. le fait que buzz bi quoi waaw xam nga buzz yooyu gars yi bëgg la def star par eh. force. <laughs> yooyu laa sibul woon. Eh. mais comme li nga wax comme côté neex beeg sax eh, beeg yooyu noonu. sama gars yi may àndal yàgg nañ ma wax yow damay toog ñoom di wax fu la ñu naan ma yow yaara théâtre yi. Mm. noonu la demee quoi donc euh, noonu la fa demee. Mm. bett nañu bett kaana bi looy dund la quoi. kaana bi lu ma yàgg dund la xam nga par parce que voilà donc am na yenn jab yi boo gisee nit di ko doxee da xam ne kii nii. c'est naturel quoi triché wul quoi tu vois. noonu la demee kaana bi lu ma yàgg dund la. lu mm. naa looloo boo ko si li gën a faciliter personnage bi. Capo saaga yi ci série bi nag parfois. saaga yi. Mm. ah saaga la noonu mooy gars yi di def. waaw saaga yi ci mbedd yee gën a garaaw. non may xaaral est-ce que nekkul. lu ñaaw si mbedd bi rek dañ ko war a wane si écran bi. waaw. Hmm? waaw yàlla nañ gis lépp. mais Kaana dafa war a éduquer tamit non non yàlla gëmul nelawul. Hmm. booy def bul xool maa ngi ci mbedd maa ngi si cinéma maa lii xool ci yàlla. Hmm. ki ci cinéma bi leen lay jéem a jàngale mooy kër ngeen xam ni lii yëg lii yaa ngi koy def si lii la lay fekk comme ussa yi ñu ngi wax. booy dégluwuñu waaraate amal chaîne YouTube ngay dugal benn film boo xam ni am na ay capot ay benn waaju baax fii ay cuqali yu ñëw di la wax <laughs> nga am benn benn émission waaraate ngay ñëw di dugal di comparer vue da ngay xam ni bële mooy romb bu ñu mm-hmm. waxantee dëgg. Mm-hmm. parce que sénégalais yi ñoo bëgg loolu si boppam. Mm-hmm. mais nag ci loolu noonu yow nga war a jaaree pour di leen jox message. di leen éduquer waale quoi tu vois man noonu laa gisee rek. donc mais gaa yi dañu jàpp ne message bi tax ko bari. bëri na trop. message bi bëri na. xanaa gars yi ñoo bëggul gis message. mais message yi bëri na. mais yenn seen i obscènes yi obscènes yi nag yenn euh, colin yeeg yenn kàddu yi. ci série bi sénégalais yu bari di ko métti lu récemment affaire Leyna bi loolu noo ko gisee. waaw loolu wax naa ko wax naa ko léegi man séquence boobu gisuma ko. Hmm. bu Leyna boobu parce que vidéo lay daw man xoolaguma vidéo. Hmm. boobu léegi maa ngi woon si job bi ci montage man instant bi dama détaché wu si mœurs. Hmm. Jean mooy monté infidèle donc man infidèle tourné rek ñëw jox gars yi laa seq rek ñoom léegi noonu laay joobee foofu noonu. voilà léegi euh, si. jabu leena bi gisuma ko mënuma si wax mais comme gars yi dégg naa am na ay plainte ak yooyu. Mhm. Even Prod am na ñoo xam ne ñoom ñoo chargé wu si wax ak yooyu donc defe naa bu génnee gars dinañ ci wax. Mhm. Ah, noonu la demee rek noonu la demee en fait en tout cas de façon ça a été plaisir kontaan nañ ci waxtaan bëggoon nañ ko gën a yaatal mais également bëgguñu jël sa ndax xam naa ni comme léegi star nga kaana bi léegi star la xam day nekk si kontaan naa Ouzin. Mhm. Ah, di kontaan si waa Dakar Net. si mhm. job bi. Mhm. wax dëgg mu ngi nice. xam nga di ñaan yàlla mu mu gën leen teg tànk ngeen dem ba voilà fi ñuy dégg tele yu mag a mag a mag yi à travers le monde ñu leen fay dégg. yàlla mën na ko affaire bi loolu la rek mooy li may wax li yëpp ci philosophie kaana du bàyyi la bokk. xam nga kaana du bàyyi mooy. ci lu ma mënti nekk du ma bàyyi dama ciy nekk di nekk ba tey man li ma bëgg sama objectif ma yegg fa mm. léegi nag yow yaay xool luy sa objectif boo nekkee école di jàng ni journaliste laa bëgg a doon nga ñëw ba doon journaliste rek ne voilà li moo ne woon objectif bi je pense que bu dee atteindre nga ko nice mm. mais bu fekkee aussi am nga objectif yu gën a kawe loolu day gën a dóob tu vois donc loolu la rek xam nga gën a job gën a jàpp gën a gën a gën a jóg góor di jàpp si góor parce que loolu mooy liggéeyu technicien technicien bu am ay jàppalante tout ça si si si audiovisuel gars yi defe naa dinañ gën a mën a dem mm-hmm. noonu la quoi noonu la rek di remercier sénégalais yëpp mm-hmm. di Kounkandé mi war a xar géej gi loo si loo koy tëjee noonu Kounkandé Kandé Kandé Kounkandé Kandé warul nangu warul sax xalaat nag naan di sax si mbiri Kounkandé lu mu si wax Kandé la day xar géej gi kan mooy xar géej gi ku day xar gars yi dañu bëgg a seey booy dañu sol de mais da bu ko bu ko xaree yow da nga bu ko xaree booy dañuy booy dañuy seey man may seeyaale obi dañuy dem de <laughs> pour nelaw de kuk xaral waay waaye ba xar géej gi bul xalaat de merci beaucoup gis ngeen ah Kung Kung xaralwaay ah ce sont les belles paroles de Kaana Kapo de son vrai nom Mouhamed ça plaisir moom la ñu dalal ci émission gisee ak ñu jël temps tuuti di kontaan baax a baax ñu doon nekk eh, ci réalisation bi di nuyu sama xarit Dev Ousin moo nekkoon ci présentation bi jaajëf. wees ti koone ak Dakar net dara la ëmb ci réew mi reste connecté